asalaamaaleykum mbokk yi déglu dalee nag jàmm collectif des universitaires pour la démocratie di ab kuréel goo xam ne dafa ëmb ñoo xam ne ay jàngalekat lañu ci daara yu kawe yi te bëgg ñu gën di dëggal démocratie fii ci mim réew tey jii de ñoom ñoo daal di fësal benn bataaxal goo xam ne moom la wóccolekaay bii di Sud Quotidien daal di xëyee ci biir bataaxal boobu ñoom ña ngay fësal seen kàddu jëmale ko nag ci projet de loi d'amnistie bii nga xam ne njiitu réewum Sénégal di Macky Sall daf ko bëgg a yóbbu ci assemblée nationale ngir ñu daal di ko fay dëggal xamante ne nag dëggal nañu projet de loi d'amnistie boobu loolu dafay mel ni ne dafa am loo xam ne dañu koo bëgg a rocc ci suñu xel daal di koy effacer fexe nag ba kenn dootu ci waxati te lépp lu jublu ci suñu wàllu xel ab patrimoine immatériel la boo xam ne nag kenn waru koo laal kenn waru koo salfaañee lii nga xam ne kon moom moo jublu ci projet de loi d'amnistie kii di Macky Sall daf koo bëgg a jëfandikoo ngir rek neenal bépp ñaawteef ak tuuma yi nga xam ne dañu koo defoon li ko dalee atum 2021 ñii nga xam ne ñoom ñooy universitaires yi gis ne li ni mel du yoon ndaxte dëkk boo gis am na ay mbir yu ñaaw yoo xam ne daf fay xew taxul ñu jël ab projet de loi d'amnistie ngir daal di koy neenal ñii nga xam ne kon ñoom ñooy universitaires yi daal di gis ne waruñu di jëfandikoo nag lépp lu jublu ci wàllu projet de loi d'amnistie ci wàllu politique ndaxte saa yu ñu ko tuddee rek mbirum politique dong de moom moo koy lal fii nga xam ne de moom mooy ci biir Sénégal loolu nag moom moo tax ba ñii nga xam ne ñoom ñooy collectif des universitaires pour la di gis ne ñii xam ne de ñoom nekk ci assemblée nationale ñoom de projet de loi bi bu yegsee si ñoom war nañu ko liñatu seetantal ko bu baax a baax ndaxte lii nga xam ne moom la ñuy waaj a def dafay mel ni ne dañuy lu leen neex bu boobaa dina am ab projet de loi d'amnistie boo xam ne dafay ñëw daal di neenal ne tey jii su fekkente ne projet de loi boobu jàll na ñoo ñàkk seen bakkeen ñooñu de dafa mel ni ne dañ leen a faataat maanaam daal ñaareelu yoon a ngi nii kon ñu leen di faat te du mujj fenn muy kon ab bataaxal boo xam ne tey jii ji culikaay bii di Sud Quotidien moom moo ko daal di fësal bataaxal boo xam ne nag ci lu tolloog ñaar téeméer yu tegal ñaar fukk ak ñaari universitaire ñoom ñoo ko daal di lu weesu kuréel boobu beneen kuréel a ngi nii ñoom it bëgg ñu daal di respecté lépp lu jublu ci wàllu ndey charte réew mi culikaay bi di l'info nañu nag fippu daal di nañu koy taxawal ba pare fas yéene amal nag ay yëngu-yëngal ci fan yi nga xam ne moom la ñu dëgmal réew mi quotidien di ci ki nga xam ne de moom mooy njiitu réewum Sénégal di Macky kuréel bi nga xam ne nag moom la ñu mujjee taxawal moom mooy euh, FIPO ñi nekk moom mooy waa FC 25 F24 aar suñu élection ak tamit Front pour la défense de la euh, démocratie lan moo nar a xew ginnaaw ñaari fan ci weeru avril muy ab laajte goo xam ne démb kii di maître Sidiki Kaba mi ngi ci doon jéem a indi ay tontu colikaay bi di las mi ngi ñuy xamal ne démb daal dinay janoo ak taskatu xibaar yi ngir ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy conclusion wu dialogue national bi ba mu fa jógee tamit ñëwaat na ci lan moo fi mën a xew euh, bu fekkente ne njiitu réewum Sénégal di Macky Sall jóge na fi euh, ci bésub ñaari fan ci weeru avril moom muy xamle ne bu boobaa moom nañu jàpp ne ki nga xam ne de moom moo jiite assemblée nationale moom moo fas ne nag nekk njiitu réew te bu boobaa moom moom dafay daal di organiser ay élection carte yëpp la ñuy jaxasewaat maanaam daal dinañu utiwaat parrainage maanaam daal ku bëgg a bokk di nga bokk ci wàllu élection yooyu wante wu culikaay bi di l'évidence moom fu mu nekk nii la muy laajte moom mooy ndax njiitu réewum Sénégal di Macky du jox nag ki nga xam ne de moom mooy président wu assemblée nationale di Amadou Mame Diop li nga xam ne moom mooy lenge yi maanaam daal mu daal di jiite nag réew mi l'évidence di xamle ne tey ji sax njiitu réewum Sénégal di Macky Sall dina daal di bind ab bataaxal conseil constitutionnel ci yan yoon la war a mun a jaar ngir su fekkente ne nag weesu nañu ñaari fan ci weeru avril dafa mel ni nag ne ki nga xam ne de moom mooy Bougane Gueye Dany moom am na tontu jëmale ko ci wàll gi ni ci bii di tribune moom mu ngay avril ki nga xam ne nag moom mooy Macky Sall dina jox lenge yi kenn ci fukk ak juróom-ñeenti candidat yi nga xam ne kon ñoom la ñu nangu ñu daal di dem ci wàllu élection yi Bougane Gueye Dany yemul foofu ndaxte jukki na jëmale ko ci wàllu projet de loi d'amnistie bi mu yëkkati ay kàddu yu mel ni xeme di ko teg ci ndoddu Macky Sall wante it ci yeneen politiciens yi ndaxte ñoo gëm rek ne lépp lu ñu def ci ay ñaawteef ab projet de loi d'amnistie moom moo ko war a mën a faase Bougane Gueye Dany kon di jëmale ko nag ci ki nga xam ne moom mooy njiitu réewum Sénégal di Macky Sall la mu bëgg sax moom mooy Macky daal di démissionné ci ne moo gën a gaawee le ma ngay ñëwaat ci xew-xew yi nga xam ne moom moo amoon keroog ba ñuy déglu ki nga xam ne de moom mooy maître Ngagne Demba Touré mu amoon nag ay greffier yoo xam ne dañoo indi woon pëcc xoo foofu nga xam ne moom mooy ca tribunal le quotidien bi ngi ñuy xamal ne parquet dafa fas yéene nag euh, liñatu ñi nga xam ne ñoom ñoo doon def ñaawteef yooyu ba pare teg leen loxo ñetti ñi di Matissa Niang Fatimata Sonko les ak tamit Amy Dia yëglikaay bi di yor yor bi di xamle ne ñooñu ay gaynde dëgg lañu fi mu nekk ni ñu ngi ci biir euh, kaso te nag dañ leen a war a bàyyi looloo yëglikaay bi di yor yor bi daal di fësal jeexale ko ak suuxub gaal gi fa li nga xam ne kon moom mooy ci diwaanu Ndar yëglikaay bi di la Soleil moo ñuy xamal ne ñu ñàkk seen bakken ñu ngay wéy di yokku ndaxte fu mu nekk nii daal di ñuy gis ci lu tollook ñaar fukk ak juróom-ñaari néew mu am ci lu tollook ñeent fukk ak juróom-ñaari nit yoo xam ne jot nañoo rëcc ci suuxub euh, gaal googu ñu ca ëpp nag ña nga bàyyeekoo foofu nga xam ne euh, moom mooy ci dëkk yi nga xam ne moom moo ñu wër euh, gouvernement bu Sénégal te premier ministre bi di Amadou Ba euh, jiite ko démb ñu nga woon fële nga xam ne moom mooy ca Ndar ngir nemmeeku nag ñi nga xam ne ñoom ñoo rëcc ci suuxub gaal googu li moo nekkoon mbokk jullikat yi li gën a fës si biir jullikat yi ñu leen di ñaanal njeexte lu bës ak jàmm. Mesdames et messieurs, bonjour. Le collectif des universitaires pour la démocratie de loi d'amnistie qu'il considère comme second assassinat des martyrs de 2021 à 2024. Aujourd'hui, donc, dans Sud Quotidien, nos confrères publient cette tribune signée par 222 universitaires. Et dans cette tribune, il est écrit qu'une telle amnistie rendrait euh, tout accès impossible à notre mémoire, qui est un patrimoine immatériel essentiel pour faire advenir une communauté nationale. En plus, ils ajoutent que l'usage politicien de l'amnistie constitue une défiance au temps en ce qu'il brûle les archives d'un peuple et par voie de conséquence brouille toute perspective de réalisation d'un avenir collectif empreint de sérénité et d'apaisement. Les universitaires ajouteront que la loi d'amnistie relative aux infractions commises euh, depuis est une prohibition à investir le passé et, ce faisant, obstrue l'accès à la vérité en remettant en cause ses fonctions instituantes, ce détournement de l'institution de l'oubli pour assurer l'impunité de hauts responsables collectif républicain fondé sur une idée de vertu et de justice. Analysé à partir d'un prisme propre à la philosophie juridique, ce projet de loi d'amnistie fragilise la vision consistant à admettre la nation comme une communauté liée par un ordre légal. Et si tous les vices et tortuosités euh, pouvaient être effacés par des lois, ces dernières perdraient leur sacralité ainsi que leur rationalité. Les professeurs d'université ne s'en arrêtent pas là et trouvent politicien rend perméable la morale publique et par voie de conséquence rend fongible le vice et la vertu. Et c'est parce que l'amnistie du président Macky Sall est une invite à l'amnésie que sa vraie nature n'est autre qu'un permis de tuer. Un tel dessein ne devrait prospérer. L'adoption du projet de loi portant amnistie devra entraîner nécessairement une saisine du Conseil constitutionnel qui pourrait invalider le texte sur le fondement des principes fondamentaux cela, le collectif des universitaires pour la démocratie conclut leur tribune en écrivant que les promoteurs de cette loi ne devraient pas ignorer que rien ne peut faire que ce qui a été n'est été. En somme, si ce projet de loi devait advenir, les députés sont invités à se remémorer le célèbre vers du poème intitulé Souffle de Birago Diop, Les morts ne sont pas morts. Et signalons que mis à part ce collectif des universitaires pour la démocratie, une autre plateforme

élection et le Front pour la défense de la démocratie qui vont donc lancer l'assaut. Une série d'initiatives est annoncée, dont des manifestations les et mars prochains. Que se passera-t-il après le 2 avril Dans le journal LAS, c'est Maître Sidiki euh, Kaba qui expose les scénarios possibles pour l'après 2 avril. En effet, hier, le ministre de l'Intérieur a fait face à la presse pour d'abord parler des conclusions du dialogue national. Sidiki Kaba a aussi fait savoir que

concernant la vacance du pouvoir, c'est comme qui dirait que Bougane Gueye Dany a déjà trouvé la solution, car dans le journal Tribune, il déclare que le 2 avril, Macky devra passer le témoin à un des 19 candidats validés. Bougane Gueye Dany ne s'en arrête pas là, il s'est aussi prononcé euh, sur cette loi d'amnistie et Bougane tire euh, sur Macky et avertit les politiciens. Selon lui, les politiciens ne doivent pas cultiver une sorte d'immunité. Bougane appelle à l'unité journal 24 heures. Dans le journal Le Quotidien, nos confrères reviennent sur euh, les blocages notés lors de l'audition de Maître Ngagne Demba au palais de justice. Et retenons avec nos confrères du journal Le Quotidien que le parquet décide de lancer euh, des poursuites et les personnes visées ont été identifiées. Matisse Arnian, Fatima Lassonkolès, Amidia, mère de la résistance patriotique, ces trois femmes considérées comme des lionnes indomptables de la résistance patriotique national Yor-Yor bi. Et pour ce qui est du chavirement d'une pirogue de migrants au large de Saint-Louis, nos confrères du quotidien Le Soleil nous font savoir que le bilan macabre s'alourdit. Les recherches ont permis pour l'instant de retrouver 27 corps sans vie et 47 rescapés, dont plusieurs ressortissants de la sous-région. Le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre, était hier au chevet des rescapés. C'est tout à vos journaux et très bonne